لا لا لا لا لا لا لا waaye màggal gi ren rax na wasaruut bi daañ ci jaar ba wër kees sant yi ñu ngi tëli Touba jàpp nga sëñ Bamba te doo bàyyi sëñ Bamba nag ku mu fàtt doo fa nan biti salaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin li suñ boroom waxoon ci alxuraan aaya yi nga xam ne ñooy ndeyi téere yi boo xar mutashaabihaat ak yi nga xam ne suñ boroom wàcce na ko te ñu war ko leeralaat firi ko kon damay leeralaat wax ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi di léppam wax na ko kon ci ndigalul sëriñ bi di Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo fi tooge jataayu Cheikhul Xadim yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kàttan ko gër ba lépp mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Serigne Touba mu xam ne nag bu ko fi njabootam gii di ay rakkam di léppam teewalee mën nañ ko wuutu ci lépp moo tax Cheikh Mahoud Bachirou Mbacke mi ngi toog sëriñ Sidi Mbackeem Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi toog sëriñ Abou Mbackeem Cheikh Mahoudou Fadi Mbacke mi ngi toog kon xam na ne fu ñu teew rek teewal lañ fa jëmmam te mboolem njabootu sëriñ Touba gi mboolem kër yi yépp kenn ku ci ne ñëw nga ñu ne ci biir dëkk bi mhm. wala nga yebal ki sës yow mu teewal la mboolem ñi nga xam ne. bokki sëriñ bi lañu woon di ay taalibeem ñëpp seenu njaboot ñu ngi fi mboolem seexi sëriñ Touba yëpp itam kenn ku ci ne seeni ndaw ñu mën a ñëwal seen bopp ñëw nañ ñu mënta ñëw yable nañ ñu ñëw teewal leen fii gàttandul ko ganam gii di président de la république Macky Sall kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem délégation bi nga àndal bépp sa ñu jiital ci sa soxna soxna Mariam fay sàll buñ ko ci tuddee tudd ci premier ministre ak ministre de l'intérieur mu mën a yóbbaale mboolem délégation bi yëpp ndax buñ la xasee tudd tudd nañ leen ñoom ñëpp sëriñ bi nag di jëmm joo xam ne suñ boroom ci li mu fàggul sëriñ Touba mooy képp ku ko fi nekkal ku ne rek da koy mate sëkk ndax xam nga ni bi mu fi toogee 2012 ba léegi saa soo fi ñëwee lépp lu mu la wax rek yittey nit ñi lay doon ndax moom ku ko xam ku ne xam ne amul yittey àdduna maa ngi wax barki démb ne amut genn këram goo xam ne boo fa duggee kër ga mën na téeméeri million kon kooku ku dëddu àdduna la ba noppi sembal Serigne Touba lu doon ay milliards yu bari te lu ci agsi rek day mel ne xaalis sawara yu koy lakk da koy delloo Serigne Touba kon kilifa gu mel noonu ku ko am war nga koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ko wér te xam ne nekkal fi Serigne Touba kat cër bu rëy la ndax danaa koy faral di nett ak Cheikh Ibrahima Faty waxoon na ne képp ku fi nekkal Serigne Touba rek suñu borom dalay rus te Cheikh abdul Ahad Mbacké da ko firi fiiri da ko firi woon fiiri mu leer dafa waxoon ne sëriñ Touba de ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar ci biir liggéey bi mu liggéey doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci lim fàgguwaale mooy xutbaani yéegi dootu génn ci ak njabootam ndax loo ko jëkk da daa wër mu wax nag ne ba mu xamee ne nag amul kenn amul ñaar te li mu yor di lenn mënu koo jox ki bàyyi kii dafa dajale mboolem li mu amoon def ko ci waxande muy alfulkul suun mu ne waxande wa nag kenn mënu koo yootaan kenn mënu caa àgg itam te jaaroo ci ki mag mu dajale njaboot gépp wax leen ne leen seen alali bàyyi ngi lépp lu ci waaye soxla ñëw ci ki mag moom ci boppam nag sañul kenn ñëw ci moom laaj ko génnewu ko ndax seen alali bàyyi ci ne waaye kenn mënu caa jaaran te jaaroo ci ki mag ñaar loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa mu wax ne jataay boobu yi nag bala ko kenn tooge danañ la peese ak bindeef fi ba nga wat leen nga door faa toog nee na buñ la peesee watoo leen ñu dooleel la ba nga àttan ko ñu door la faa teg kon képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom dalay may jooju doole Sëriñ Tuubaa leen ko faggul kon sëriñ bi ñu ngi koy ñaaral mu yàgg fi lool tam ànd ko gër ndax taxawaayam ci lislaam ak taxawaayam ci réew mi àdduna sépp seere na ko te bokk na ci li ko gën a ñor mooy na ko kilifaam yu jëkkee daa waxee rek mooy xam ne mboolem ju këri diine yëpp benn lañu suñ borom tam defal ko ci ndam ba waxtu wu nekk li muy waxit mooy mu ngi leen di sant ñoom kilifa diine yi ndax ba mu leen tàllalee loxoom ñoo ñëpp dañ ko ci wuusi xam ne li suñ boroom santaane ci lislaam mooy buñ leen woowee ci loo xam lu dundal diine da ngeen ko def istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum lima yuhyikum kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di dalal jàmm nag président de la république Macky Sall ci ñëw gi mu ñëw Touba te muy lu mu yàgg def mm-hmm. lii ko sëriñ Mountakha seeral doy na sëkk dara mënu cee dolli ko wat lii mu ko wax ne ko Serigne Touba rek moom ngay jëflante te teg na sa te bu yàggut danaa ci ñëw sëriñ bi wax na ko keroog ba mu fi mujjee bi Serigne Abdou Fatah Mbacké wàññi ko mu ñëw di ko jaale kon Serigne bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax moom la fa yàlla teg mu nekk ci boppu njabootu Serigne Touba gi ñëpp di ak njabootam di ay doomam di ay taalibeem kon lépp loo ci jëfal nit rek xamal ne moom nga koy jëfal. ndax loolu lépp moom la waroon kon nag moom mu ngi lay sant la gërëm man mi nga xam ne nag man la doxalee sama digg yow mat naa ci seere ndax seere moom la ci ëpp mooy la ngay seere na yàlla suñu boom rek tax ndax doy na sëkk seere kafe billaahi shahidan te ma shahidna illa bima alimna waaye ci li ma ci xam mooy jëpp yitte joo xam ne sëriñ bi wax na ko ko mu bàyyi ko ci moom bu agsee ci moom lu lu yitte jafe jafe jafe bu dee lu mu tam dana fexe ba def ko loolu rek mënu su ko weesu loolu moom lu ma mën a seere la te yemale ko ci sëriñ bi itam mboolem njabootu ko sëriñ képp ku ci dégg sa yitte lépp loo xam ne mën na ko ca dana ko ca def ba def ca lu mu mënut kon nag sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko di tax di jëf yàlla na ko fayal boppam kon la la waxoon bu yàggul rek ne li ngay jëfar sëriñ Tuubaa nit ñi xamut tam sëriñ Tuubaa mi tax ngay jëf xam na ko te loolaa ci am solo sëriñ bi ci boppam itam wax na la ci làmmiñam ne la maa ngi lay ñaanal sab liggéey yegg li ngay yéene ci réew lépp ak ba mu sotti ko ba mu sotti ba ni nga ko bëggee nga amee ko nii ma ne ko na ko ci ñaan bu baax moo ne loolu yàlla def na ko bu noppi moo ko wax ci làmmiñam ñëpp yu dégg sëriñ Moustapha mi ngi toog seere la ci kon moom yéeneem ci yow ëppwur fenn kon mi ngi lay sant ci li nga koy jëfal ci dëkk bi ci wàllu tëli yi nga xam ne yaa ngi koy def muy loo xam ne itam la sëriñ Abdul Ahad Mbacke daa wax ne lu ne fànn deesu ko woon ku ami bët te ku amuti bët mët ta waxal ne du gis waaye li ñu fiy jëf moom ñi dëkk ci dëkk bi gis nañ ko ba ci màggal gii rek bi nga xamee ne ndox mi manqué woon na juróomi fara forage ci dëkk bi ministère Mansour fay mu yor loolu bañ ci waxtaanee def na ci jéegu yoro ci sa ndigal ndax boo juróomi forage panne ba dëkk bépp tàmbalee manqué ndox mu def ci yitte yëkkati lopp juróomi téeméeri millions yu tegal def ko ci ndox mi ngir màggal gi ndox mi bañ a loolu nag ak yëg ak yitte te diir bu gàtt la boo xam ne xatoon na ngir jëf ko yeneen fànn yi ci des yëpp itam muy ci wàllu hôpital bi nga xam naal ko fi ak yeneen yi yëpp nga xam ne lu ci ne lim naa ko limati ko ba jërta del siwaat jëpp ay jëf la joo xam ne ku amul yéene ci baru doo ko fa def kon ñu ngi lay ñaanal ci yàlla ci barke suñu Tuubaa yàlla suñu borom fay la la sëriñ bi digaloon itam ba nga fa njëkkee ñëw ci moom ca fekk ko ca Mbàkke Kajoor dalaa waxoon ne la li gën a nekk sama yitte de mooy nga yërëmal ma néew doole ji ak baykat yi loolu itam bi nga fi mujjee wax na ne yëg naa yaa ngi ciy góorgóorlu ndegam nag kon nawet bi yàlla suñu borom def na mu demee ni mu demee sëriñ bi yëkkatiwoon ay kàddoom wax na ne ñëpp dellu seen borom jàng ay kaamil ngir ndoxam barke wàcce ba mu ko defee itam ñëpp li xew ñëpp gisandoo nañ ko kon nag li ci war waru gouvernement bi mooy fexe ba ndegam nawet bi baaxee na noonu ñu fexe ba dimbale baykat yi ba ni ñu ko war a jënd lépp mu yomb ci ñoom ndax loolu mooy indi naataange ci dëkk bi kon sëriñ bi neen loolu nam la diggale woon léeg mi ngi la koy fàttaliwaat mu ngi lay sant nag di la gërëm ci li ngay jëf ci biir ak li ngay jëf ci bit te xam ne lépp yàlla tax nga di ko jëf ak sëriñ Touba sëriñ Touba nag waxoon na ne أن من واصلني لا لغرض دنيوي فإنه يكون من المقربين كيف كو خاني نيوغي سي مان تا داراي ادنا تخولا جو سوني بروم دان لا بوري سي نيكو جيغي أن من واصلني لدنيا فقط فإن الله يكرمه ما دام حيا موكو بيند كيف كو خاني نيوغي سي مان تا ادنا ييكيتي لاي سوني بروم دان لا تيرال دير سا ديرو دوندو كون نك لي ام سولو رك مو ياكار سيغ توبا اك لي جيف جيمم تخ كون يالنا فا يالنا بوفم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته